su boobaa nag sëñ bi lim bëgg ci noonu mooy sun xol yi lëndëm toxoo fi te su boobaa bu laaj la fa des élément al al unsur mudaad mooy saa yu lëndëm toxoo rek leer ñëw bi darura kon li sëñ bi bëgg ci noonu mooy ñu tàqalikoo ak lëndëm li sëñ ci noonu mooy ñu tàqalikoo akub tër li sëñ bi bëgg ci noonu mooy ñu tàqalikoo ak i radail muy ay caay-caay su loola dañee nag ci noonu dañuy daal di doon ay ndab yoo xam ne njëfanda ay dañuy mën a duy kon li sëñ tubaa bëgg ci noonu te war koo bëgg ci sunu bopp mooy ñuy ndab yu set yoo xam ne dañuy doon ndabi leer te bañ a doon ndabi lëndëm dañuy doon ndabi baax te bañ a doon ndabi bon dañuy doon ndabi yiw te bañ a doon ndabi yiwadi ndax a achar wal xayr toujours ñoom ñaar dañuy confronté saa yoo déggee char mën naa tekki lu bari xayr mën naa tekki lu bari ndax day am baat yoo xam ne kalimaat ganiya la da baat baat yu riche la soo nee xayran bu ma nee tekk mën naa koo tekk jëf jëf ju baax xayran mën naa tekki alal xayran mën naa tekk doom ju baax moog birr ñoo yem birr birrul waalidayni birr birr lu yaatoo yaatu la charr noonu la amee doole moom itam charr lu mën doon rek charrul umuuri charrul na charrul naasi charr day day nangu yu bëree bëree bëri su boobaa nag kon sëñ bi lim ñëwoon di ko muaalaja ci ñun ci noonu mooy tàqale ñu ak i bon bon te sa bon bon yiy dem rek mbaax mbaax yi daal di ñëw mubaasharatan fi saasi kon loolu mooy mission Sëriñ Tuuba kon buñ ci bëggee jariñu nag ñun lu ñuy def en tant que ay taalibe mooy la la borom yoon wi të tëraloon keneen ku ñëw ginnaaw yoon wi amoo droit yokk ci virgil amoo droit wàññi ci virgule su la neexee nag nga topp lépp su la neexee nga bàyyi lépp waaye yoon wi moom na ko fi bàyyi ndax loolu mooy yoon ki ki ki xàll yoon wi jamono yi muy xàll yoon wi nee naa la yoon wi mënut a ñàkk ndax bu amul woon ñun xamu fuñ jëm bi mu ko xàllee itam lépp lu ci ay conséquences muy ay problème ay coona mosu ci ne kenn kaay taxawal ma fii man ma dem toogi mosul ne kenn kaay dem doxi man ma bañ a dem moo demal boppam waxal boppam lijjantil boppam. ba ñam ko seqaloon ñëpp xam ne mooma mu ñëwaat toog fi mu toogoon nangu ko bokk ak yow bokk yi ku taxani rooti